Euh, voilà donc dañuy ñëw jeexalee suñu waxtaan rek ak li nga xamante ni euh, moom mooy euh, ki nga xamante ni mooy Queen Biz nga xamante ni saa su nekk rek bu toogee lee li su bëri day apprécier da lay nuyu day wax si yow wax ju baax ñu gis ne mu ngi woy ba tey nekk si millier bi ah, di di si bay waaram macha allah mais dafa viré si li nga xamante ni mooy politique juste rek benn ban ban constat wala sax ban xalaat nga ci am si artistes yi nga xamante ne dañuy jég-jéeg saay jug dem ci politique ndax du moom kese daanaka xanaa moo ci gën a fës ndax mouvement bu mu yëkkati. waaw dëgg la xam nga euh, euh, dañu ne dañu nekk ci réew moo xam ne réewu démocratie la. Mhm. te démocratie léegi euh, dafa yaatu ba ci sa biir kër sax dafa am démocratie. Mhm. tey danga nga naan weex léeg-léeg so damay xëy suba ñu ne ma lan nga bëgg ñu togg añ ma ne leen waaye du ngeen togg ceebu jën. Mhm. Mohamed ne non non non ne ko mais Mohamed baa ñu togg ceebu mu ne ma ne ko loo bëgg mu ne. maa fait donc kër sax dafa am démocratie Queen Biz maa ngi koy nuyu man it am naa respect bu rëy si moom ndax fu ma fekk dina mu nuyu jox ma cër du ma sax woowee sama tour grand rek la may woowee ah, waaw vraiment mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci musique am donc c'est vrai que léegi gis naa ni que dugg na ci politique bi euh, teg na mouvement am donc nit ku nekk nag ak li la motiver. te nit ku nekk da nga am sa vie. danga am sa responsabilité donc loolu aussi dañ ko koy nangul donc euh, maa ngi koy ñaanal koy ñaanal bu baax a baax a baax.